dal leen ak jàmm ci li yéen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien élection législative yu fanweeri fan ci weeru sulet bu ñu moyul ay benke ñenke yu bëri bëri dana ci laxasu ndax fi ñu toll ni ñu bëri bëri jotaguñ seen i carte d'identité tax na sax ba fi ñu toll ni njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Moustapha Diakhaté ne ndax duñu dàq wate yi ba jëmmi jamono ngir ñu gën a mën a waajal ngir askanu ñoom itam mën a jot seen i carte d'identité njiital coalition Manko Yeesal Modou Diagne Fada ci Rewmi Quotidien kilifa yi ci boppam ñu war a mën a def seen kem kattan ba askan wi mën a jot seen i kardante njiital coalition gagnante wattu Sénégal maître Abdoulaye Wade moom itam fala budd askan wi danañ jot seen kardante moo xam te nii wala ci naa moom maître Abdoulaye Wade yi ni sax moo tax mu wootee am marche nationale ni ki ëllëg tey jële yi ni kabine Abdoulaye Daouda ci boppam ak administration bi ñoom dong lañ joxoon baram tuuma ci lu jëm ci biirum a sax tax ba lay ay jiixi jaax wala sax ak kat di ngat gu ci nar a am carte d'identité yooyu la ak ñaari waxambaane yu nu ko fekke ba teg leen loxo observateur ni kenn ki bokk na ci Samba Ba moom Samba Ba ci boppam ne daanaka juróomi waxtu ci ngoon gi ba juróom benn waxtu ci ngoon gi la ko ñooñu Barthélémy Dias daal di dëj ci biir nekk moom Samba Ba ne tiitoon na dëgg-dëgg sax ci wàllu dundam moo tax it moom Samba Ba ci observateur ne bi mu génn ci li ni mel day porté ci plainte kii di Bamba Fall ak Barthélémy Dias ndax ñoom ci boppam seeni militant ñoo ko toroxal final ko indil ko ay jafe-jafe ci lu jëm ci ñaari waxambaane yooyu ak carte d'identité yéen lan fekkee woon sous-préfet bu Almadies ci Rewmi Quotidien ne li ñu wax ne fekkee nañu ko ndaw ñun ci ay carte d'identité loolu li amut ndax ndaw ñooñu li sous-préfet bu Almadies ne juróom benn téeméer ak juróomi carte d'identité dong lañ leen fekkee wuute lool junni carte d'identité yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu fekkee ñaari waxambaane yooyu li keneen la koo xam ne kii moom itam taxaw na tem ngir si ay bés yi mu porté plainte waa Manko Wattu Sénégal muy Cheikh Bakhoum mbir mi quotidien Cheikh Bakhoum nekk njiital addi nekkoon ganuk émission grand oral ni ki gaaw bi ñu génn ci Rewmi FM ne finna yi amoon ci Grand Yoff kenn warula ko lu may waa Manko Wattu Sénégal moo tax ba ñu songo seeni militant ba gaañ leen la tey jëlee ne mbir mi ab huissier mi ngi ciy wax te danañ koy yóbbu fa mbaxelu nekke benn jamono joojale Walf Quotidien ak Direct Info ne maître Abdoulaye Wade moom ma ngay sëkkatal Sénégal ci lu jëm ci i kaa bi ne njiital coalition gagnante Wattu Sénégal loo xam ne jëm na ci mbirum carte xamante nañ ko ko wax fi mu toll ndax moom ci boppam day amal marche national ni ki ëllëg ndax élection législative yu fanweeri fan ci weeru sula dañ koy dàq wala duñ ko dàq dàq googule bu ko Moustapha jaxete xalaatee président Macky Sall moom xalaatu ko benn yoon moom njiitu réewu Sénégal ci ni kaay bi di laas ne ay élection kenn xalaatut waxi dàq Abdoulaye Daouda Diallo moom itam ne fanweeri fan ci weeru sulet bi danañ amal ay élection législative ci réewum Sénégal élection yi la ak ñu ñàkk a jot seen carte d'identité Ousmane Sonko ci ni cabinet ñuy wax waxi récépissé li ni mel bu ñu ko amalee nguur gi ci boppam dana ko sàcc gannaaw coowal carte d'identité yeeg élection yeeg dañ koy daq du ñu ko dàq sur côté jene ay bésu yi mooy ay bésu mujj ci campagne ñeel élection yooyu le laata ñu yegg dimanche di ñu war a amal élection yi Mouhamadou ab Abdallah jot yéen kat bi ma nga woon ca diwaan bu Thiès di Kobas ak Kokkeli Idrissa Seck maître Abdoulaye Wade di woote ab marché national Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor contrôle lépp loo xam ne jëm na ci wax waxi dàq élection Amadou Ba moom itam ca diwaan bu Médina di Kobas Bamba Fall li ñu ni cabinet ay bésu mujj la ñu nekk waaye fi ñu toll ni daanaka campagne bi jeex na lool jax gi mu jax kay tax na ba ay bés suñu génn observateur ne am na ñoo xam ne ñi ñàkk seen bakkan lu ci mel ne ca doon bu tëngee ci ab taalibe ci boppam moo ñàkk bakkanam ba waa Benno Bokk Yaakaar di amal ab meeting ca doon bu Kaolack cortège yu professeur Amsatou Sow Sidibé moo dal ci ab camion ba kenn ñàkk bakkanam te doon bu njàmbur yéen kay bi convoi bu militant yu pur ñoom itam ñoo fa fàtt benn doomu adama waa Mbour ñoom itam amal nañ seen marche silencieuse fàttaliku seen juróom-ñetti supporter ñu ñàkk seen bakkan ci sàtt Demba Diop ni ay bés yi yéen i waa Mbour ci boppam kay nee nañu danañu jéggale waaye duñu fàtte ki ñu mënta fàtte di ko joxoon baramu tuuma jamono ji yéen i kaay bi mooy maître Augustin Senghor ak Sayer Seck ñoom seen bopp yéen i kaay bi ne waa Mbour ci boppam ñetti bés dong la may kilifa yi ñu baral enquête bi ba mën a teg loxo ñi nga xam ñoom ñoo indi firnde yooyu la ci stade gi sunu lamb ne Sa Thiès dëgg-dëgg kan lañ ko war a mën a ci lamb ji gannaaw Boy Niang numéro 2 yi ni kabin Tapha Tine ci boppam tamit ñi ngi koy xalaat ndax combat mag Tapha Tine dina mën a nekk wala du mën a nekk